bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wa sala allahu wasallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu santee sunu boroom subhanahu wa taala julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisu àjjuma bu tedd bi di benn fan ci maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom delsi rek di sof sunu waxtaan ci waxtaan yi weesu nga xam ne sunuy bokk toog nañ ci jataay bi di laaye biir seen bopp di laayeenteeg yéen biir bokk yi xam ngeen ne dafa am juróom benn mbir yoo xam ne diine yi yàlla mos a wàcce yépp maase nañ ci lu ko sàmm ak lu ko ñoŋal lu ko wattu moo doon seen itte ñi amul sax diine ju bàyyi ko ci sunu boroom xanaa di jëfandikoo xel mu rafet ñoom sax maase nañ ci ne juróom yi dañ ko war a wattu dañ ko war a sàmm muy juróom-benn yoo xam ne ba ci jëkk mooy doomu aadama ju nekk diineem dañ ko ko war a sàmmule dara luy xajamal diine duñu ko def bakkanam dañ ko dañ ko ko war a sàmmule am xelam dañ ko ko war a sàmmule ab juddoom dañ ko ko war a sàmmule alalam dañ ko ko war a sàmmule deram ab deram dañ ko ko war a sàmmule juróom benn yi mooy yi nga xam ne diine ju yàlla mu sa wàcce danga ñëw ngir lu ko ñoŋal ak lu ko sàmm moom lañu tënk wax ne diinun fa nafsun summa aqlun nasabu maalun ila daruratin tantasibu ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكن, تكن موافيا فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان kon sàmm yooyu moo waral diine yépp wàcc tey nag ñu bëgg cee jukki benn waxtaane ko muy sàmm bakkan sàmm bakkanu doomu aadama bañ koo rey bañ koo teg fitna ab jullit dañoo araamal ci moom sax mu rey boppam mu xaru bu nekkee ci ay xat-xat wala wéradi wala tartar wala gàllankoor ci jëmmam mu metti lool ba nga xam ne faatu moo koy gënal dund su boobaa sax lislaam dana ko déedéet sañu rey sañu rey sa bopp ndax moomoo sa bopp wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima gannaaw nit ki moomul boppam ba sëñta rey boppam kon la gën a xel gën a nangu mooy keneen amul sañ-sañu rey ke rey kenn ab jullit sañoo koo gëdd sañoo ko woyofal sañoo ko ŋàññ moom la ku baax ki tënk ne wa min ihanatin aw intihaari li muslimin aw sabbihi bil aari sunu boroom wax ne bu leen rey bàkkan boo xam ne yoon reyu ko wala taqtulu nafsa allati xarama bil xaq ngir bëgg mag bakkan yi ñoŋ nit ñi am jàmm moo tax sunu borom santaane ne nit su rayee su jëlee bakkan te rey ga tegewul ci aw yoon te du njuumte moo ko tey dañu ko war a rey bu ñu ko defee ñépp am jàmm wala walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaquun ndax nit ki su ko leeree na su reyee ñu rey ko balaa rey dana ko waaj lislaam sax dafa tere nit jël gànnaay di ko mib mbokkum jullitam yor gànnaay di ko jëme ci sa mbokkum jullit dañu ko tere ndax rek bañ seytaane laxasu ca xadis ba nee na laa yushir ahadukum ila ila axiihi bisilaahi fa innahu laa yadri laalla shaytaana yanzaau fi yadi fa yaqaw fi xufratin min xufari naar nee bu kenn jël gànnaay di ko jëmi nit ndax seytaane mën na caa laxasu ba nga faat ko te soo ko te su ko faatee day tàbbi safara yàlla na ci yàlla musal kon jël gànnaay di ko jëme ci nit donte dangay kaf donte yéen bokk sax ñaari wajur dañu koy tere ndax bañ ab safaan kon nag ki jël gànnaay rey ab jaambur bu deful dara soo ko defee danga nga tàbbal tiitaange ci xoli nit ñi fekk boroom kër bu yore njabootam yore ay soxnaam soo jëlee bakkanam xañ nga soxna ya seen boroom kër xañ nga njaboot ga seen waajur te amaana sax muy koo xam ne dafa bootoon mbooloo bari na boroom kër yoo xam ne dañuy boot mbooloo boot ay ndaw boot ay jigéen boot boot ay màggat boot seeni bokk ba bootaale ay jàmbur kon nag jël ngànnaay di rey nit bàkkaar la boo xam ne sunu boroom nee na soo ko defee dangaa mel ni danga faagaagal doomu aadama yépp min min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fil ard fa ka annama qatala annaasa jamia kon soo reyee benn bakkan mel na ni danga faagaagal àdduna sépp rey bakkan donte day tuut tànk lislaam da koy tere wa idal mawuudatu suilat bi ay dambin qutilat te nit su reyee te tey la ko cay fekk dafa bari la ko cay fekk sunu borom da koo tëkku إلى الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا على الصلاه te nit su reyee bakkan te tey ko la ko cay fekk dafa bari sunu boroom nee na wa man yaqtul muminan mutaamidan ku rey ab jullit te tey ko fa jazaauhu jahannam muy benn <clears throat> yàlla lam koy faye mooy jahannam xaalidan fiiha du caagéen day dugg rek génn waaye dafay sax béel fa muy ñaar wa ghadiba allahu yàlla tam mere na ko merum yàlla xajul ci dara muy ñett wala anahu yàlla rëbb na ko <clears throat> yàlla nu yàlla musal ci rëbbam muy ñeent wa wa wa aadda lahu adaban azima te yàlla ma ma ko xarool mbugal mu mu màgg a màgg kon gis ngeen ki rey bakkan te tay ko la ko coy fekk ni mu bare ku tedd ko wax na ne laa yazaalul muslimu fi fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman nee na ab jullit lu mu mën a def su ëllëgee mën naa mucc am jàmm ba mu des ku rey nit te tey ko waxaat na ne la zawaalu dunia ahwanu ala allahi min qatli muminin bi xeyri xaq nee na àdduna ju tukki moo gën a woyof woyof ca yàlla ku rey nit te te deful dara lu tax ñu war koo rey maanaam rey nit àdduna ju tukki sax ko tane jamono jii ñu toll nag rey nit dafa doon lu yomb loo xam ne nit ñi dañ koy def te duñ ci am solo duñ duñ duñ ko amal solo duñ ci am soxla xadis ba nee na danañ dem ba àgg ci jamono joo xam ne nit dana rey te du lu du tax mu xam lu rey ñu rey nit te du tax mu xam lu tax ñu rey ko danga gis ñuy xuloo rek kenn ka jël ngànnaay jam moroom ja wala ñuy weerante kenn ka ja wala ñuy xeex kenn ka jam moroom ja am na ñuy xeex sax ngir weccet am na ñuy xeex ndax mbër sàngam mooy sama mbër mbër sàngam mooy mbërëm mbërëm daanu ñuy werante xolam tàng mu génne paaka jam bokkut ak ñi nga xam ne nag dañuy rey ngir alali àdduna bokkut ak ñi nga xam ne kon dañuy rey rek ngir alali àdduna sacrifice di sacrifier ay nit ngir alali àdduna wala di rey nit ngir jël alalam xam ngeen ne fan yii rek am na fii ci dëkk bu tedd bi ku ñu wax ne dafa nekk ci barab ba mu yëngutoo fu ñuy jaaye essence ñu fekk fekk ko fa guddi jël ngànnaay doo ci bopp bi mu faatu te kiy rey nit ngir alal ndax dana ko jariñoo ci àdduna ndax suñu ko jàppee mën nañ koo tëj giiru dundam wala at yu baree bari yoo xam ne la taxoon muy rey du ko jariñoo te la koy nekk ëllëg nag moo gën a tar wala tashtari dunia bi uxra yaa fataa jooju waxoon yow cem si bul jaay sa àlaxira di ko jënde àdduna ndax man baa a nuuran bit du jaay fa sa yandamu ndax ku fab leer jaaye ko jënde ko lëndëm dana ko rëccu kon nag jaaduwul fenn waaye fii bokk na ci barab yi nga xam ne ñoo ca raw barab bu tedd bii ak boroom lim fi bëgg ak lim fi naal ak lim fi ñaan nit ne fi amul dara lu muy xalaat wala luy na ci bëgg-bëggam xanaa di faat bakkan ngir alali àdduna joo xam ne xamoo da nga ko jaro da ko jariñoo wala déet soo ko jariñoo woon sax dëkkadul jar soo ko doon jariñoo sax àdduna da jar ndax day jeex te yaa ngi koy jënde loo xam ne ëllëg moom du jeex muy merum yàlla ak mbugalum yàlla ak yàlla ak mbugalum yàlla kon nag jot na sëkk ñu gën a yaraat njaboot gi ci ñu tënku ci diine tënku ci njàngalem sëriñ bi tënku ci xam ne àdduna jërul alaaxira tënku ci ñu xam ne nit ki la gën a jaadu mooy mu futti ko liggéey lu mu am moo koy ñaq mu lew ko domm su ko jëfandikoo am ca tuyaaba waaye fekk as gor suy daan dooleem nga ñëw ëpp ko doole wala nga bett ko wala nga gaañ ko ngir jël alalam loola nañ ci gën a laxasaayu yar njaboot gi ba ñu xam ne loola képp ku ko def la la fekk euh, jëru ko wax naa aaya bi léegi mooy fa jazaauhu jahannamu muy benn xaalidan fiha muy ñaar wa xadiba allahu alayhi muy ñett wa laanahu muy ñeent wa addalahu azaban adiban muy juróom kon loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ koo laayi biir sunu bopp laaye ko biir ndaw ñi ndaw ñi toll ci seen diggu doole nga xam ne liggéey dong mooy seen mu war a doon fula ci ñoom mooy jom ci ñoom bu ñu defee ne lalanu leen tax am mooy jël yëfi jàmbur ci nii walla ci naa loola képp koo xam ne mooy sa xalaat na nga delloo si sam xel te xam ne jaaduwul fenn waaye ci dëkk bii nag moo ci raw bu ñu ñëwee nag ci xutba bi nga xam ne moom la imaam bi fas yéene jàng léegi ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne yéen jaami yàlla yi na ngeen tuubal yàlla bala ngeen a faatu na ngeen njëkkante di def lu baax bala ngeen a dem ba du ngeen tara def lu baax li dox seen diggante ak seen boroom na ngeen koy yeesal saa su di ko jokk tey bari lu ngeen di sàkk sarax ku bëgg wërsëg wu yaatu da ngay sàkk sarax na ngeen di dégle lu baax ku bëgg naataange da ngay digle lu baax na ngeen di tereb safaan ku bëgg ndimbalul yàlla da ngay tereb safaan euh, bokk na ci ni ñuy xamee ne nit ki am xelam rafet na mooy mu woyofal àdduna jublu àllaaxira ndax àdduna day jeex nañu waajal bàmmeel faaw ñu tàbbi ci bàmmeel nañu waajal dekki ku dee da nga dekki nañu xam ne yàlla li mu ñu dénk muy téereem bi nañ ci ngoy sunna si mu wàcc ci yonent bi nañ ci ngoy yàlla nag ku ne ci dëgg jàpp ca xam na ko ku ne ca leneen yàlla xam na ko kon nañu jéem a delloo njukkal yàlla ndax kenn ku ne ci nun la ko yàlla defal mënu koo fay waaye na ko jéem a delloo njukkal te nañuy noonoo noonu yàlla yi te diina yàlla ji nañu jaral sunu bakkan ak sunu alal loolu mooy xutba bu njëkk bi xutba bu ñaareel bi gannaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ne euh, téere bi yàlla bi ak xaddis yi ne ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wan ne yiw wépp mi ngi ci jublu yàlla te ginnaawal àdduna ak lépp lu dul yàlla ak di njëkkante di sàkku ngërëmul yàlla bokk na ci li ñuy sàkkoo ngërëmul yàlla nag mooy fonk julli nañu xam ne jaam bi fi muy gën a jege sunu borom mooy bu sujjootee ndax xar kanamam moo gën a tedd ci jëmmam moom lu gën a fonk ci jëmmam kon soo ko fabee dëpp ko ci suuf toroxlul yàlla lépp lu mu ñaan yàlla yàlla may ko ko kon nañu gën a fonk julli nañu xam ne ñii baagante suba ak ngoon di dem ci jàkka yi xam nañu la ñuy def ndax lañuy sàkku euh, da koo jar kon nañu gën fonk waxtu yu juróom nañu ko téye mi ngi ñaan yàlla ni mu ñu mayee ay bët yu ñuy gisee nanu may bëti xol ba nu mën a xàmmee lu baax ak naka sudul noona bi ngi ñaan yàlla yàlla nanu yàlla fóotal sunuy xol te fóotal leen seeni xol di ñaan yàlla yàlla nanu yàlla jéggal te jéggal leen loolu mooy tënku xutba bi bi nga xam ne moom la imaam fas yéene jàng ñu ngi ñaanal nag sunu kilifa gu mag yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo dëgëral gën koo wattu ba lépp lu mu naal ci diine ji yàlla defal ko ca ndam lu kawe njortam te lépp lu mu sumb yàlla nañu ko ànd ak moom ba mu yegg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa ashhadu an la الحمد لله الذي وسعنا برحمته الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده اللمي الأمين رسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تفعلوا وأكثروا من الصدقة ترزقوا وأمروا بالمعروف تحسبوا وانهوا عن المنكر تنصروا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور alinaabatu ila daari alxuluud wa tazawudu bi sukna alqubuur wa taahubu lyowmi nusuur wala tufarritu fi jambillah faqad allamakum kitaabah wa nahaja lakum sabilah ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين وأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين الحمد لله الذي أسرق أنوار اليقين في قلوب من شاء من العباد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسوله الذي بنوره أضاءت الأغوار والأمجاد أما بعد فيا أيها الناس إن آيات كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم laa tazaalu tadulluna ala anna alxayra kullahu fi linqitaaci ila allah walihraadi can kulli ma siwaa walmusaaracati ila maa yunaalu bihi ridaa wa min afdali dalik alsalaa فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن أجل ذلك تتابع المتقون الغدو والرواح إلى المساجد فحافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات وعضوا بالنواجذ قبل الفوات فتح الله لكل لكل خير فتح الله لكل خير بصيرتنا وبصيرتكم wa tahara min wa tahara min kulli sharrin sariratana wa sariratakum amin yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin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 الله الله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 ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر يا الله ربنا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 asalaamaaleykum. asalaam.